والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بظفر بولو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيو باخ mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ci euh, fayda tijaniya dellu siwaat tey pour ñetteel bi yoon waxtaanee dara ci dund Mawlana Cheikh al Islam barakatul anam Alxaaj Ibrahim Ñas démb ñu ngi doon waxtaanee tukkeem jógee Sénégal euh, dem France dem Belgique dem London euh, def escale technique Kuwait def ko Qatar continuer dem Liban dem ba Pakistan jóge fa continuer ba Chine tey ñu ngi ci état bi nga xam ne mooy état bu Chine euh, mooy état bu ama am solo ci tukki mi ndax bàyyi nga jógee ca peggu àdduna mi ngi wax naan jógee na euh, Pékin jëm Canton ca Chine bu sori ga mu ne mu mel ni lisaanu xaalu kawlax mi ngi koy oo ko nag fi ne nag sëriñ bi sori nga yaa ngi bëgga a sori wax dëgg dëgg soowu jant ba penku dox bu sori la te Cheikh Ibrahim dox na ko dara waralu ko lu may tasaare njub ci wax ak ci jëf ak ci liggéey li yonentu yàlla Muhammad sallallahu tukki mi rek ci diiwaan bi sërul xal bi xarful jiim xarful gis mu naan bi Bayruut an Xuseyna الشرق خادما رسول إله العرش وهو تعالى رسول إله العرش وهو تعالى mu ne maa ngi jógee Beyrouth maa ngi yéene jublu Chine ngir liggéeyal yonent bi nga xam ne mooy yàlla mi borom arash yàlla mu kawe kon ci commencement yi way yi rek mi ngi lay wan ne Chine moom daanaka mooy objectif principal yi tukki mi ndax ba nañuy askan yonent bi ne moo ne sàkku leen xam-xam donte seen la waaye Cheikh Ibrahim dafa tukki ci tukki koo xam ne ci ndigal la ko teg ni ñu ko waxee démb waaye uy ji invitation yi China Muslim Association muy mbootaay gi nga xam ne moo takkee woon julliti Chine yëpp te xaritam Burhanuddin jiite woon ko wax nañ bi bi ñu àggee démb ci état bu Égypte bi ne bi mu àggee Égypte ambassadeur Chine invité na ko defal ko réception ne ko maa ngi kontaan lool ci bi nga jaaree fii ma nuyuwante yow ndax yaa ngi jëm sama dëkk fa nga xam ne mooy Siin waaye ci biir tukki mi balaa ñoo dugg ci état bi détaillé ko bàyyi dafay jàngale lu bëree bëree bëree bëri ma seetlu bu gàtt dama gis ne jàngal nañu ci euh, ñeenti bayti jàngal nañu ci mission am lan la muy oote jëm ci yàlla te du lésiner sur les moyens pour doxal mission boobu noonu moom du ko fekkee dooleem du ko fekkee wér-gi-yaram moom du ko fekkee ñooñam duñ ko fekkee ñoom ñëpp daf leen màng pour ñu jàpp ci mission boobu nga xam ne mooy diine yëkkatu baati laa ilaha illallah dindi réer dindi tooñ ci kaw suuf goreel doomu aadama yi ci jaamu leneen lu yàlla méngale leen ak li nga xam ne la yàlla bëgg ci ñun mooy daf ñoo bind pour ñu jaamu ko daf ñoo bind pour ñu xam ko mi ngi wax ne alawtul bihaara zaxiraati wa inna alawtul qura wal mudna balhal jibaala tiim naa géeju mag océan yi tiim naa euh, montagne yi tiim naa dëkk yu ndaw yi ak métropole yi jubluwuma ci dara lu may arumu ridal baari li nusrati diinihi wa ubrizu li jiril jadini misaala damay sàkku ndimba damay sàkku ngërmaane borom bi nga xam ne moo ma xett moo ma bind ci dimbale diineem ji waaye wan maas bu bees gi la meilleure voie yoon wëggal nga xam ne buñ ci jaaree seen àdduna dina mucc seen alaxira mucc ndax ñi woon ci post modernité développement technologique am na développement scientifique am na waaye xéewal yi borom boobu li muy yaatu yëpp xiir na civilisation moderne bi civilisation occidentale bi ci am ñuy dàngang dem bay weddi yàlla bàyyi nag mi ngi araftu maas ku bees gi ne leen ni ñu war a sante yàlla dëgg-dëgg ci xéewala bi mooy ñu gën koo fàttaliku xam ne moom mooy aji maye te lim bëgg ci ñun danaa bu ñu teralee doomu aadama yéegal ñu ci kaw jéer yi ak ci kaw géej gi gënal ñu ci lépp loo xam ne moom la bind na ko ni ñu ko jàngalee ci suratul isra moo ñu jaamu ko te topp message yi yonentam yi nga xam ne moo leen yoon di jox leen pour wan leen li nga xam ne mooy yoonu njub kon maas gu bees gi bu ñu bëggee jub nañ topp jàngale Cheikh Ibrahima nga xam ne lu dara lu may jàngale yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne amoon moom amoon na prétexte sax ci bañ a tukki tukki gu sori gi wala dox dox yu métti yi wala def itte gu rëy gi pour xamale diine pour jubal doomu aadama yi pour tasaare message yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour takkalante jullit yi jëmbat al uxuwa al islamiyya cette fraternité islamique nga xam ne alquran moo ñu ko jàngal te diñu ko digal amoon na ngant ndax ma nga néew doole ma nga màggat liggéey na ko ba màggat mënoon naa toog noppalu dallu waaye déedéet daifun alilun shaibun mutahammisun li yansura dinan la yuridu qitala mi ngi ànd ak enthousiasme cawartaane gu mat sëkk gannaaw boo xam ne mi ngi màggat néew doole pour dimbale diine joo xam ne bugut xeex bugut xare message baay bi dafa mel ni tey la ko bind mi ngi ànd ak modernité bu mat sëkk wax ñu ci jamono boo xam ne ñu ngi bëgg a niroole islam ak terrorisme ñi ngi ko bëgg a niroole ak ñi ngi ko bëgg a niroole ak diine joo xam ne dafay xiir nit ñi ci bañante wala ci euh, ber doomu aadama ci ne bokkuñ pas-pas donte génnewu la ci sa kër xeexu la pour génne la ci sa diine alquran Cheikh Ibrahim dafa bëri lu mu koy wax yàlla terewuñu ngeen baax jëm ci ñi nga xam ne génnewuñ leen ci seen i kër te ñi ngi baax jëm ci yéen ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa maanu te dafa bëgg kuy maanu Cheikh Ibrahima dafa bëri lu mu koy ci lu mu koy indi ci discours am lettre bi mu bindoon conseil général 1900 élection 1900 conseil général 1956 ma ngi fay indi aaya boobu boo demee ci benn note boo xam ne mi ngi ko bind note manuscrite di fa wax ci village planétaire àddina bi ni mu nekkee as ndëkk boo xam ne ñoo bokk espace public bi ku ci nekk war ngaa dox ci lu jëmale askan wi kanam waaye ku ci ne am nga sa ngëm-ngëm ak say pas-pas jullit warta mën tëb rek noonoo koo xam ne bokkut ak moom pas-pas waaye jéem koo xeex pour pas-pasam yàqu wala génne ko ci ndax yàlla mooy juge bi gën gën a mat danañ teew ci kanamam mu àtte seet kan moo nekkoon ci njub yonentu yàlla Muhammad la mi koy fàttali fii ci xasida bi nga xam ne la bind ci tukki mi di wax ne yonentu bi mësta xare waaye dañ koo songu mu delloo gannaaw ñi ko songu waaye dafa delloo gannaaw gannaaw boo xam ne réer matale ne woon yàlla indi ko laqad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin jógee na ci seen borom leer ak téere boo xam ne téere bu bit la mooy alquran yi nga xam ne moom la jox yénentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne li anna nabiya hashimi dahra maa gaza bala sadda udwanan wa radda dalala yénentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xarewut waaye dafa delloo noon nooneel gannaaw dafa delloo réer gannaaw ma ne kon ñeenti béyt yooyu bàyyi indi na ci définir na ci lan mooy mission am

ci Chine gi nga xam ne Mao Zedong Mao Zedong moo ko jiite woon ci jamono jooju doon kàngami communisme boo xam ne influence am ñëwoon na ba ak si gi amoon fi parti yoo xam ne ba léegi ay parti yoo xam ne maoïste léniniste lañ Mao ci ñi leen inspiré la bokk foofu la ko bàyyi waxee gannaaw boo xamee ne China Muslim Association muy mbootaayu jullit Chine ñoo ko invité jaaree ko ci gouvernement Chine ndax ku magee ni bàyyi boo koy invité da nga ca boole gouvernement waaye ci boppam waxal na boppam ne tukkeem ne mission am njëkk ñuy am indépendance sax ci la gënoon a yomb ndax boobu daanaka frontières yi amaguñu woon waaye moom dafa bëgg réew muy dem rek na ci gouvernement ja na ci gouvernement ba ànd parce que bëggut a indi benn yi wala ñàkk déggoo ci diggante ñamey fekk foofu ak nguur yi moo tax tukkeem gi gouvernement Chine bokk na ci ñi ko entériné ak ñi ko nangu pour mu dem mais terewul dëgg gi mu leen wax dégg ko rek ci biir xasida bi mu ne tëmës rek jeunesse bi lay wax تمسك بأجيال النبي متابعا مذاهبه والمحدثات كلا لا نغا جابو نغا جابو يو جنس بي جنس اسلام جابال تي cati bubu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga topp ay ngiram waaye yuñ sos yi na nga ko moytu na nga ko sori fa tuxni ka an dusturi kurzin wa xaalidin wa tuxni ka an jonin yarumu muxaala loolu na la doy walis constitution yi diw wala diw bul toog di ut modèle beneen modèle bu dut yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na la doy walis théorie wala pas passe yi comme mel ni John Foster Dulles nga xam ne dafay sàkku lu Moi, Américain, Amérique super superpuissance moi buur moi bu mi ni me adina, àddina ni ko déggee mon la ñëpp war a roy mooy modèle bi ñu war top, topp John Foster Dulles mii bàyyi di junj ci woy wi ministre des affaires étrangères 53 ba 59 ci jamono mon su président Amérique bu wax Dwight Eisenhower qui la comme ministre des affaires étrangères ouais. dafa lim siiwee mooy ne dafa nekkoon un adversaire du communisme dafa bañoon communisme lool bàyyi nga gis ne gis nga voie médiane bi Inaamulaay Xaan doon wax ne moom la bàyyi di proposer àddina bi mu nekk entre communisme ak capitalisme bu occidentaux yi ñi ngi xëccoo ku nekk ne sa modèle moo gën a jub bàyyi dañu projet di di duñu duñu di prôné benn troisième voie benn yoon boo xam ne mooy yoon bu jub te mooy yoon bu inspiré wu ci alquran ak sunna ak jàngale yéen moom la bàyyi di wax ci yooyu mu ne ngir ak ngir yenent bi sallallahu alayhi wasallam na doy jëli si jullit bi wala ñuy déglu communisme bi nga xam ne dafa yàqu jëm ci wedd yàlla wala ñuy déglu capitalisme bi nga xam ne moom la occidentaux yi di prôné te ki ko symboliser ci way wi di John Foster Dulles mi nga xam ne ministre des affaires étrangères bu Amérique la woon waaye daal di continuer ne fa maa Napoléonun aw Léninun wa markasun bi muxan ilayhim xalli an ka xabaala Napoléon Bonaparte wër na àddina bi la ko dalee France ba Russie colonisé na fu nekk ñëw ba Égypte taal la xare yi du jeex ànd ak armée millions yi nit am kattan lool ilif genn wàlla àdduna mais bàyyi mu ne bum la bum la sa modèle booy jéem a roy ndax drapeau am daanu na nguuram màbbu na mu mujj ci kaso dem ci exil ba dee ca ñu doog koo dellu si kon kooku bu mu doon sa modèle amul réussite parce que réussite boo xam ne deewaale woo ko réussite bu éphémère rek la loolu du réussite ki am réussite dëgg-dëgg mooy yonentu Yàlla Muhammad sallallahu alayhi ndax tàmbalee ci moyens yu néew am itte goo xam ne yaatu na ba mel ni géej am noonu yoo xam ne dañoo am doole kattanu am juddu am nguur am alal seytaane ànd ak ñoom nga am réussite bu bu bu amee doole noonu ci durée vingt quatre ans tabax nguur yoo xam ne une patrie idéologique un plus plus d'un milliard six cent millions ci ci kaw suuf ubbi àddina bi yëpp sa message di daw ba léegi malgré xeex yëpp bàyyi na lislaam am doole ay noonu ma ngi koy xeex ay doomam ma koy xeex te ba léegi mi ngi ne taxaw kooku mooy ki am réussite mooy yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bu roy ci Napoléon bu roy ci Lénine ak révolution bolchevique bi nga xam ne moo ko inspiré 1917 ca Russie am influence théoriciens yi juddu ci biir mouvement ba comme ci biir communisme ñoom Karl Marx ak ñoom euh, Lénine nag li ñu am xel yépp bàyyi mu ne bu leen déglu seen théorie ay théorie loo xam rek ay théorie yoo xam ne du diiree jamono parce que inspiré wu amul inspiration bu jógee ci asamaan ki am ndigal am inspiration bu jógee ci asamaan kooku mu yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon booy roy na bàyyi mu ne kooku mu yenentu bi nga xam ne moo ñu indil téere yàlla bi kitaabu minallahi jli jalaaluhu qadimun wa baqin laa yaxaafu zawala téere bi nga xam ne dafa jógee ci borom bi subhanahu mu yàgg lool ni yàgg yàlla gi ndax melokaani yàlla la waxam la kàddoom la te ragalut jëng jamono lu jamono yàgg-yàgg du ñëw ba weddi alquran xanaa kay jamono mooy dox ba indi ay théorie yoo xam ne ñun mujj naan les théories scientifiques du Coran ay gëm-gëm ak ay pas-pas ak ay découverte yo xam dañu dañoo gis ne alcorane alxuraan junjoon nañu ko bu yàgg kon jamono moy dox ba ñu gis ne toujours rek mu édifier édifié wax ne li ci yalla la jógee ndax bu jógee wutoon ci yalla danañ ci gis outé yu bari ni ko alxuraan jàngale kon ku bëgg benn théorie bo xam moy mooy sa code pour sa aduna da nga japp ci alcorane ku bëgg code bo xam mo lay jubal jëmale ca delluwaay ba muy àllaaxira da nga japp ci alcorane jooju القرآن جل نتلاه الفتى المأمون جهرا ويقظة ودع بعد هذا كل قيل وقال القرآن جل قم لك أسمان أولو من على محمد النبي المأمون من يوديك جانج ان بلين جور أه من جناو لبيرينون بروف بلينون باين واخي ديو ديو تنجا جابو في القرآن جل تي بن فيلوزوف أه، خلات كات فرنسي بنيو إرنست رونان خمني موسى جبرو الإسلام تر وعندنا ينتمي موي le prophète le plus ndax moo ci mujj waaye dañoo am ay preuve am ay alquran am alquran am waxi saxaabaan yi am histoire am waykati jamono yi nga xam ne daanaka ñoo doon historien was waykati arab yi nga xam ne ñoo doon historien jamono ji te mujj nekk ay julit ñu nettali ñu bëri ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent mu ne mooy le prophète le plus historique moo tax bàyyi bu ne jaxaroon wa yàqatatan jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa biir te dafa leer kon ku ko am waraloo di làmbi leneen nga gis na juróom juróom benn béytu yi bàyyi indi ci xasida bi mu def ci tukki mi dëgg-dëgg tënk na ci message boo xam ne message bu yaatu la pour doomi jullit yëpp nga xam ne buñ buñ jéggaa buñ jéggaani leneen kuy wàlleyaan sa kër dafa tëggut te lépp lu ñu soxla rek mi ngi ci alquran mi ngi ci jàngale yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te ñaari source yooyu Cheikh Ibrahim nee na sama source mooy alquran sama source mooy sunna te gisuma ku ma ko gën a dégg kon nañ dellu ci jàngale jàngale Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu bu ñu bëggee ñu am tontu ci lépp loo xam ne question yi nga xam ne yëpp jamono mi ngi koy posé waaye mi ngi tàmbali tukki bi le 2 octobre waxoon nañ ko démb le 20 octobre 5 heures ci fajar na départ de Karachi pour Hong Kong via Calcutta et Bangkok Baye mi ngi jaaree Calcutta ak ci Inde ak euh, Bangkok jëm fa nga xam ne mooy Hong Kong mu ne 16h25 arrivé à Hong Kong où Ibrahim Niass est accueilli par de membre du Moutamar chinois cinq seize heures vingt cinq tukki bi yàgg na cinq heures du matin ba quatre heures cinq ci bëccëg muy doog a agsi fa nga xam ne mooy Hong Kong association euh, membre yi mu'tamar alami islami congrès islamique mondial ba nekk Hong Kong ñoo ko teeru ci buntu avion ba alhamdulilah Cheikh Ibrahim dara ré daraam leerut léppam rek feeñ na ndax photo ba mu def ci aéroport Hong Kong ba taxaw kàngam ya sàppe amee fleur pour teeroo ko ko Oustaz Barham Diop ba nga taxaw ak euh, Souleymane Kane photo boobu am nañ ko photo boobu mu ngi fi kon lépp lu ñu bàyyi wax rek dëgg la lépp lu ñu nettali sax bana ci dara ndax dafay am kersa muy wax ne aarifiina billaahi bu ñu leen taggee dañuy ruus loolu moo koy dal moo tax lu bëri lu ko yàlla may ci ay xéwal am na ci yoo xam ne sax dana ko wax ngir sante ko yàlla mais danay xerees sax di wax ci boppam ndax Oustaz Barham Diop mu ne bu ko taggaan wala le wax ci moom dara sax da ngay gis maanaam ko yow da ngay tagg sa bopp baraam kenn du tagg sa bopp loolu foofu la oyofam tawaadu am ak oyofam foofu la tolloon moom Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu waaye photo yaa ngi fi archive yaa fi ci ñooñuy ñooñu ci le 21 octobre mu ne Baye jugee Hong Kong départ de Hong Kong par train spécial en compagnie de madame et du président Edgar Faure à la frontière trois membres de la China Islamic Association de Pékin sont venus accueillir les trois voyageurs mu ne Baye jugee Hong Kong dugg ci train boo xam ne ma ngi fekk euh, premier ministre France ñu Edgar Faure ma ngi wax Gaston fer dama joom dem du Gaston de Fer, Edgar Faure premier ministre France la woon moo soxnaam yëpp ña nga ca train boobu nga xamne mo jëlé bay a Hong Kong jamono joju Hong Kong Hong Kong ci cosaan ci Chine la bok mais jamono joju anglais yi dañ ko defon beron beron muy dëkk bopam wa Chine rattaché wat dañ ko légui mu bok ci Chine kon fa la bay jaar Je fa nga à ne Pékin di capitale Chine je euh, suis mu Hong Kong après départ jëm Canton ci train train est la avec Edgar Faure nga xam ne premier ministre Chine président du conseil lañ ko daan wax ci jamono 17h50 5h 6h moins 10 ci le 21 octobre arrivé à Canton accueilli à la gare par des membres de la section locale de la China Islamic Association il passa la nuit à l'hôtel bàyyi ak canton moom la wax ñu bari naan ko Guangzhou léegi commerçant sénégalais yi mbir nañ di fa dem ñinga nga teeru ci ca gaar ba waa membre mbootaay jullit yi ñoko yi mu dal ci hôtel ba moom ñett ñima mu ànd muy professeur Ibrahima Mahmoud Diop ak Souleyman Kane le 22 octobre Baye jógee Canton dem Pékin ci avion mu toujours en compagnie du président Edgar Faure ba tey Edgar Faure a ci rek ci tukim mom kenn xamul dal parce que boobu wàcc na nekkatul premier ministre waaye mi ngi liggéey président mi ngi liggéey gouvernement France ba léegi nekk seen conseiller nekk seen moustachar après quatre escales c' est l' arrivée à 17 h l' aérodrome de la capitale de la république populaire de Chine Baye def na ñeenti escale diggante Canton ba Pékin doog a agsi nag fa nga xam ne mooy Pékin di capitalu Chine ñi ko accueillir ñii la mu ne le comité d' accueil composé de Burhan Din Shahidi président de la China Islamic également vice-président du Sénat de Chine Burhanuddin mi ko teeru moo jiite mbootaay jullit yi ci Chine mbootaay mi yëpp waaye vice-président la woon ci Sénat ba nga xam ne mooy Sénat yi Chine ah ñoo ñoo ñoo teeru bàyyi ah, photographe yi mun nañu nga teew di ko di ko di ko photo ñu yóbbu bàyyi ci hôtel Pékin bi nga xam ne gani gouvernement Chine bi rek lañu fay dalal foofu la ñu yóbbu Cheikh Ibrahim dalal mu ne 23 octobre membre association bi jullit yi Chine ñëw nañ ci hôtel bi pour wax Bay programme yi tukki mi ñi ngi insister nag mu ne le président Burhanuddin Chahidi insiste pour que le grand marabout reste trois semaines en Chine mais 15 jours est un maximum que Cheikh Ibrahim ne peut dépasser ñoom dañoo bëgg bàyyi def fa ñetti semaines mais bàyyi na leen mënu faa a ñaari semaines Le 24 octobre ca 9h visite des bâtiments publics de l'Assemblée nationale populaire et du musée de la Révolution du musée de l'armée 9 heures visiter l'Assemblée nationale de Chine visiter fa le musée de la de la révolution visiter fa le musée de l'armée visite sax amna luñu ci oustaz suñu oustaz visiter am ku poème ci chinois di tari di tari bayne lu muy wax ñu tekkil ko ko ne fay tag président Chine نمو غريل دوم ادم مون نانغام مون نانغام بيما خي بدان ري باينه كو لا وكل لا ذاك احمد يجيس نيمل دغم بي دانتي لوكو كين بيما خي دي ملال بريزيدان شي نا مو ليفري دوم ادم اك مون نانغام مون نانغام ما واخي بار باينه كو ديدي ديدي كوكو يرنتو يالله محمد صلى الله عليه وسلم تي جامونو جو شي شين كو خامني سيمبول لون تي ويد يالله كي كومونيزم Une après-midi 24 octobre, visite du musée des nationalités et du bâtiment de la radio. Baïdem, visitez le musée des nationalités de Chine. ak fa nga xam ne fa la rajo Chine nekk xam ne rajo Chine di daan wax arab bàyyi daf ko daan déglu maa ngi gis lettre bu ñu bind bàyyi ñoom ci arab di ko wax ne ko ñu ngi koy renouveler abonnement am ci rajo Chine bi nga xam ne ah, mooy wax arab lettre la boo xam ne ñoo ko bind Cheikh Ibrahim ñu ngi ko amee fii. 25 octobre bàyyi visité l'institut islamique bu Chine euh, l'institut institut boobu nga xam ne ñu ne am na juma am bibliothèque am ñetti salle de lecture. yoo xam ne ñu ngi fa def alquran ak ay téere ay manuscrits ay maxtuut maxtuutaat yu yàgg a yàgg 13h bàyyi julli ca jumaa ju mag ja 26 octobre ñu ne ma nga sedd lool ñu ngi ko noté dafa sedd lool 10h le président Bourhandine Chahidi reçoit les Sénégalais à son bureau du Sénat mu recevoir Baye ak oustaz ak professeur ak euh, Souleymane Kane euh, ci bureau bi nga xam ne bureau Sénat bu Chine le 31 octobre mu ne le grand marabout donne une conférence à l'association de l'amitié des peuples de Chine et d'Afrique am na mbootaay boo xam ne dafa takkee à waa Chine ak mbo ak réewi Afrique yi Cheikh Ibrahim defar fa waxtaan ñeent fukki minute la fa waxtaan waxtaan fa ci julliti Sénégal nit ñi dundee ak l'islam ci Sénégal ba mu jeexee mu ne puis les assistants posent quelques questions et notamment sur les raisons de la crise entre Senghor et Mamadou Dia bi me pose la question surtout si vous bi nga xam ne nekkoon na ci président Senghor ak président Mamadou Dia Cheikh Ibrahim tontu qui ci dit le 1er novembre bataille bay Chine c'est midi association musulmane Chine euh, fait un déjeuner invité Baye ci est añ ci restaurant pékin bu magama 16h30 ci euh les visiteurs sont reçus par le président Chuen En-lai en présence de tous les dirigeants de la China Islamic Association et du secrétaire général de l'association de l'amitié des peuples de Chine et d'Afrique. président premier ministre Chine Chuen En-lai gis nañ photo il bay mi ngi ci ñu bëri ci ñun ñi ngi ko amé mi ngi ci Facebook ak fu nek Cheikh Ibrahima a ngi tok ak moom mu ne mu recevoir bay ak membre association yi julli ci Chine yëpp. Euh, gannaaw bu bàyyi ñaanalee julliti Chine ñaanal waa Chine mu ne Cheikh Ibrahima waxtaan nag moom ci julliti Sénégal ak julliti Afrique naka la ñuy dundee euh, Baye wax na ko tamit xaritoom moom Baye digganteem ak Jamal Abdou Nasser Baye ku ku fidèle la anami ci dafa mën xaritoo ku ko yàlla booleeg ngir yàlla du la fàtte mukk mu demee ba Chine terewul mi ngi recommandé xaritam muy Jamal Abdou Nasser waaye oustaz mu ne bàyyi ne na ko li ko jaax li ko yëm ci soen laay daal mooy diggante bi ñu waxtaan yëpp li mu koy gën di laaj mooy jullit ñi ñaata lañ Sénégal ak ñaata lañ ci àddina bi maanaam mbiri jullit ñi daal itteel na ko lool xam naa loolu tax bàyyi moom mbiri soen laay moo ko gënoon a neex ci Mao bi nga xam ne moo doon président Chine ci boppam ndax bi ñu ko waxee ne Mao nekkut euh, euh, Pékin ma nga Shanghai waaye mën nañ laa jox avion nga dem fekk ko fa mu recevoir la bàyyi def ne baax na Chouaib Laye daal moom doy na ko ndax gis na proximité ak jullit yi nga xam ne ñooy ñooy julliti Chine xam na loo tax Cheikh Ibrahim Thio loolu toog ak moom walis muy toog ak ki nga xam ne mooy président yi réew mi. Baye waxtaan waxtaan gi mu def ak Chouaib Laye waxtaan na fa ci boppam ci mbiri tariqa yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ak rôle bu mag bi nga xam ne joué nañ ko ci tasaare l'islam ak ci stabilité réew mi ak ci lépp loo xam ne mooy doxal réew mi. Choyne laay wax bàyyi ne ko moom bëgg naa ñëw Afrique sax incha allah balaa yàgg ñeent fukki minutes la audience bi duré pour woon pour wan la ne tubaab yi dëgg dëgg ñoo doy waat ñu ne ñu jox bàyyi tee boo xam ne amul suukar loolu lu ñu ko war a mën a xamee ba ci attaaya ji ñu ko fa jox nga xam ne chinois yi duñu naan def suukar seen tii tee bi ñu naan duñu def suukar loolu sax ñu ngi ko mentionné ci rapport bi nga xam ne bind nañ ko ci tukki bàyyi bi ci Chine mooy mm. a posone bu la neexee ñu def ko comme tee ba ngay naan xam nañ ne amul suukar ñooñ dëgg-dëgg am nañ bët fépp am nañ loxo fépp waaye yàlla moo leen ëpp doole te moom moo leen lépp sukkeeri ji li ma waxoon bàyyi dëgg dëgg-dëgg la ne ko yow dañ laa gàllaajal ci falaqi ak naasi ci lettre bu mu bind ñu ngi ko yore dañ laa gàllaajal ci falaqi ak naasi loxob kuy lor du agsi ci yow mukk yow yaa ngi yaa ngi fay ci géeju si yaxsimuka min an naas yalla mo la wattu ci nit ñi mo tax kenn du la mënal dara 3 novembre bay rombu frontière ba euh, jël vol jël avion jëm fa nga xam ne mooy Égypte 6 novembre Jamal Abdel Nasser président Égypte recevoir na ko Nasser reçoit les visiteurs dans sa propriété personnelle ci villa am këram du du du liggéeykaay ba sax waaye palem ba ci boppam fa la recevoir bay ak nga xam ne ñoom la ànd ak il accueille dans son salon il l'accueille dans son salon puis s'entretient avec le marabout pendant un tête-à-tête de 20 minutes waxtaan ak bàyyi ñaar fukki yoo xam ne ñoom ñaar rek ngay waxtaan bàyyi dox fa foofu ci diplomatie Sénégal ndax rapport baa ngi Cheikh Ibrahima précisera qu'il a conseillé au président Jamal Abdel Nasser de se rapprocher et de se réconcilier avec président Senghor mi dox pour jubale Jamal Abdel Nasser ak ki nga xam président Senghor bàyyi def na Égypte euh, fan ci tukki moomu gannaaw bu mu jógee Chine dëppaat nag ñibbi si Dakar ba mu ñibbisee dakaar nag mën nañ cee def taxaw ndax taxaw fekkee minute yi des na waxtaan diggante ak président Senghor ndax njëkk muy départ di dem Senghor recevoir na ko ci septembre 1963 Senghor moo sàkk audience waxtaan ak moom pour am déggoo ak moom ndax ku ne xam na ne Baye wax na ci ojo boo xam ne ojo baa ngi fi yàlla daf ko dimbale. du rek bind waaye audio bi ci boppam bàyyi di wax te Senghor bi ko wax Lamine Gueye indee ci man la ko njëkk a indi ne ko ni ma jàppee jàppalee ma ko dama bëgg nga jàppalee ko kii ndax am naa yaakaar ci moom te réew mi soxla ko jàppee jàppalee ma ko dama bëgg nga jàppalee ko ko jàppalee ko jàppee ko sax nu ko bàyyi jàpp ko waaye bi ñu demee ba ci année mille neuf cent vers mille neuf ci la am diggante Lamine Gueye ak Senghor bàyyi nag dafay des ak Mouhamadul Amine ndax xam ne moom du gis Mouhamadul amin di jàpp Léopold loolu pas-pasam la di principe am waaye am na ci entourage Senghor ñu àndoon ak moom ñoo xam ne ñoom loolu nooneel gu réeree lañ ko defoon ba xam ne lépp loo xam ne lor la rek ak tooñ ñun gis nañ ko ci këyit yi def nañ ko Cheikh Ibrahima radiyallahu taala am na ci sax ba dem am kuy bind lettre tubaab yi maa ngi amee lettre bi fii 1947 naan leen nañ def sëriñ bi nañ def bàyyi résidence surveillée maanaam aaye ko sax mu génn nañ ko daanaka comme ne ci sa kër ngay nekk. waaye alhamdulilah ndimbali yàlla li ko su gëriñ waxoon loxo kuy lordu ak si ceew ña ko doon pexeel ñoo mujj am jafe-jafe yoo xam ne ñii màggat ci kaso ñii am loraange koo xam ne dëgg-dëgg inna allaha yudaafi an alladina amanu yàlla mooy protéger ñi nga xam ne dañ koo gëm radiallahu taala an loolu indi uteem digganteem ak Senghor ba ci année soixante yi soixante te terewul gouvernement Dia nga xam ne moo doon président du conseil du premier ministre ci ci ci nguuru Senghor buñ soxlawaan bàyyi danañ sàkku ndimbalam ndax wax naa leen fi bërki ci leçon bi ñu njëkk a joxe ne ñi ngi koy wax ne ko am na réew arab yoo xam ne nangu gu ñu am relation ak Sénégal ndax li ko kuurul jullit jiite donte majorité ba jullit lañ bàyyi moo dox ba loolu dañ def 17 conférence ak ay réunion ci ay njiiti jullit ci alamul arab yi ci monde islamique pour ñu reconnaître Sénégal ci fànn boobu bi mu ñëwee rendre leen compte rapport yam leen rendre compte yëpp ñu ngi ko amee fii kon terewul liñ doon uteeg moom yëpp ci pas-pas ba am ñenn ñu ñu extrême def ko noonu terewul mi ngi dimbali réew mi ndax moom asiru wa ujaahidu fi sabilillahi li yazdaadu diina wal watana aafiyatan damay dox jiyaat ci yoonu yàlla jiyaat ju mag ji ngir diine ji ak réew mi doollee ko ba ci 62 bàyyi def benn waxtaan ak waxtaan boo xam ne nekk tubaab yaa ngi koy déglu parce que rapport bañ ci bind ñu ne bàyyi ne na gouvernement Mamadou Dia gouvernement bi nguuram jeex na léegi mu daanu fi ñu waxee ne bàyyi wax na ko ak fi nguur gi daanoo matul juróomi weer nga gis ne dëgg-dëgg ku yàlla xamal dangay gis fu sore sore Senghor nag bëgg na juboo ak Cheikh Ibrahim moo tax septembre 1963 avant Baye di tukki mu ñaan Baye pour dajeeg moom moo ko sàkk waxtaan ak moom lañ fa waxtaanee yëpp mi ngi nii ma tiim Senghor sax ñaan na Baye ne ko ndax li ñu waxtaanee mën naa ko publier ci journal Baye ne ko bu la neexee nga publier ko ndax Baye ki Oustaz Baram Diop wax ne lam ne ca ba wét ba mu wéetee lam ne ba mu wéttalikoo ca ne dëgg gi mu lay wax ragalul mu féete kaw nee na ko yow am ak yow problème waaye seen gouvernement dafa am doxalin boo xam ne jëmut yoon te arrangé wul suñ diine ji gis nañu ay prêtre wala ay njiiti yu ne ci beneen diine yoo xam ne fi ne ñi ngi gën a am doole sax ci réew mi nag bëgg nañ maandu bëgg nañ ñëpp nekk ci jàmm waaye bu leen fexe delloo ñu gannaaw looloo tax mënu ma woon a dégg ak yow sa war ne ko man euh, donte naam bokkuma ci seen diine waaye doxuma ci lu nasaxal seen diine gannaaw te bugg naa ni may jëflanteek yeneen xalifa yi yeneen njitit diine yi ci réew mi ma jëflanteeku ci yow ci dimbale la ci sa mission Baye moom sàkkuwut ci dara Senghor ne Baye bëgg naa jël trent million yoo xam ne man maa ko jël pare maa koy fay at mu jot ñu dagg ma dara ba mu jeex ma dimbale la ci sa mission Baye sàkku walaaju ko Baye continuer dem ba mu ñibbisee tukki ba tey taxut mu dem ci sama mais salon d'honneur lañ ko fekk ne ko président mu def la bëggoon recevoir njëkk ngay dellu Médina ci tukki Chine mii la ba tey oustaz mu ne ñu jël leen foofu yóbbu leen dem sama war tëju di waxtaan ak Baye ba mu yàgg mu génn ne kan mooy secrétaire sëriñ bi oustaz ne ko man de ci laa bokk gis jàngale Baye ak oyof gi nekk ci moom mu ne ko dama bëgg jàppale sëriñ bi ci mission 30 millions yoo xam ne ci man la jógee jógee wut ci nguur maa koy fay nguur gi muy 30 millions may laajte mooy secrétaire sëriñ استاذ منى بباي غيني مو جاسو خول باي فاتلكو بيتي بباي داف سي قصيده بي حرف الجيم لي نون جانغ ليغي عليك الصلاه الله يا سعد انه اتاك خفاف يرجعون الثقال تي فيزيت بباي داف تي قبر بني وخني قبر سعد ابن ابي وقاص لا تي غوانزو تي شين باي داف كو فيزيتي خمغا سعد لي جاي نتي محمد صلى الله عليه وسلم مبكم لا تي والو يايم دا ني وخني نيتيل ولا نيتيل نيت بو جيكدوغو ci lislaam boobu amul lu may fukki at ak juróom-ñaar Saad ibn Abi Waqaas moo commandant moo jiite woon Qaadisiye xeex bañ doon def ci Irak ba ñuy dugg Faris mang ca woon def na ay mission diplomatique yu bari ci Chine dañuy wax ne moo yóbbu Chine l'islam am na ñu ne ñu ngi ko suul Baqiya waaye siiw na lool ci julliti Chine ne moom ñu ngi ko suul foofu ci Guangzhou bàyyi ñu wax ko ko weddiwu ko waaye dafa dem teew ci xabar ba ziyaar ko def tawasul ci yéntu yàlla Muhammad ne am na délégation bu la ñëwal yow Saadu dañoo bëgg bu ñuy ñibbi ñu diis gan oustaz mu ne tukki mi yëpp xaw ma 2000 dollars yaakaar naa 2000 dollars la wax ne moom la ñu fa jëlee Chine li tukki mi rek li muy officiel yëpp xaalis amu fa. Ibrahima xaalis moom daf ko taxut a jóg ndax oustaz mu ne bëri na njiiti arab buy wax ak moom la ci jamono jooju naan ko ndax soxlawu leen dara da nga gis maanaam soxlawuñ dara ku joxe participer da ngay ci mission bi wala jumaa ji wala lu mu mën di doon yaa ko def sa coobara sëñ mu laaju la dara. mu ne daanaka jëlewuñ amuñ tukki mi amul xaalis waaye biñ ñëwee ba Dakar war a agsi Medina 30 millions ci jamono jooju dugg ci loxo loxo bàyyi mu xool bàyyi fàttaliku béyti bi ne ko attaaka xifaafun yarji'una thiqaala fàttaliku li bàyyi wax ci diwaan bi ne yow Saad am na délégation bu la ñëwal ñu ngi tawasul ci barke sa sëriñ bi sa sang bi mu yentu yàlla Muhammad dañoo bëgg bu ñuy ñibbi ñu diis gann wax dëgg yàlla bi ñu agsee diis nañ diis nañ gann kooku mooy euh, loolu yëpp ci tukki mi la ba tey pour jeexal rek ci diggante sengoor ak Cheikh Ibrahima radiyallahu am lii lettre la boo xam ne bàyyi moo ko bind 1962 boobu seen relation rataxagut sax te ratax gi Senghor moo ko moo ko moo ko sàkku bàyyi gis na ci maslaayu réew mi ci jamono yooyu baax na mu uyu ko ci déggoo gi nga xam ne mu la koy woo ko maslaa réew mi la rek lettre bu am am solo la bàyyi moo ko bind Senghor le 21 août 1962 du tontu tontu j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre manuscrite du 21 août 1962 et vous en remercie car elle m'a permis de me rappeler cette parole de nos sages l'âme d'un peuple est pour les autres aussi impénétrable que l'âme des individus personne ne connaît personne ce n'est pas une raison de ne pas collaborer de ne pas s'aimer une telle pensée nous dicte le combat de chaque jour que nous devons mener au service d'une amélioration de la condition humaine, étant bien entendu qu'il s'agit de la condition de l'homme en général et non de quelques hommes en particulier. Étant, entendu qu'une telle amélioration n'est pas faite que d'éléments matériels, mais tend à la réalisation et à l'épanouissement sous toutes ses formes de la personne humaine. Nous savons, Excellence, que le destin de ce pays dépend de ce que nous ferons nous-mêmes, pour nous-mêmes, par nous-mêmes, car il est aussi possible, comme pour les autres peuples de la Terre, de développer notre propre type racial grâce aux ressources que la civilisation moderne offre à tous, grâce aux pouvoirs et droits qui nous reviennent de, notre passé historique, de, notre culture, de notre art et des forces politiques et sociales de la vie pour fournir à l'humanité quelques contributions africaines dont nous seuls sommes capables. Si dans cette marche commune vers un même destin avec les autres États africains, nous voulons que notre civilisation porte la marque non seulement de notre croyance, mais aussi la voie que nous avons suivie pour arriver à ces croyances. Et c'est une voie humaine, car l'humanité n'est pas une moyenne, mais elle est faite de toute la variété de l'expérience des hommes. Allah nous a procuré un tel enseignement pour le comportement individuel et collectif d'une société civilisée, vivante dans la sourate Al-Asr, le temps. Je souhaite que son enseignement soit une source pour la réconciliation des hommes et leur collaboration fraternelle pour un meilleur devenir du Sénégal dans une Afrique libre et unie

loolu du lay ci ñu bañ a bëggante donte mënuñoo xamante sax ku ne mënta xam sa morom lim la ëmbal waaye warta tere ñu bëggante loolu moo tax dañoo war a dox ñun nit ñi pour mbiri doomu aadama jëm kanam war nañoo fexe ba ñu am épanouissement épanouissement matériel ak war nañoo fexe ba suñ dund nëtëx waaye suñu roxo tamit dund war nañoo fexe ba xeet gu ñu bokk xeet woowu jëm kanam war nañoo fexe jëfandikoo ressources yi nga xam ne science ñu ko jox wala technologie walla dox bu jamono dox bañ àgg ca war nañ koo jëfandikoo pour jëm kanam génn ci li nga xam ne daanaka mooy sous développement fii bàyyi nga koy jox daanaka théorie bu ñuy def théorie du développement bàyyi nga koy posé ci ci biir lettre bi. ne ko waaye dañoo war a fexe lëngoo bu mu nekk rek ku nekk di dox sa bopp waaye ñun réewi Afrique yëpp war nañoo fexe jéemal a lëngoo di dimbalante di jàppalante ndax suñ xeet suñ suñ suñ suñu askan jëm kanam. bàyyi ne ko nit ñi expérience bi doomu adama am yëpp doomu aadama daf ko war a jëriñoo bépp expérience boo xam ne nit def na ko fu mu ko mën a defee ci àddina jaar ca pas-pas ba baax mu jëriñ ko ci wàllu àddunaam wala ci wàllu àllaaxiram nit doomu aadama war na ko mën a jëriñe bu ndax jàngale jàngale bu bu am résultat la yàlla bay jàngale ko ne bay bay ne ko maa lay delloo ci suratul asr wala asri nañ ci mébét te maa ngi yaakaar ne dana nekk jàngat boo xam ne ñun ñëpp mën nañoo jëriñ mën nañoo jë mën naa jëriñ tamit suñu societé maa ngi yaakaar ne jàngale alquran jàng jàngale wala asar boobu dana nekk balluwaay boo xam ne dafay jubale doomu aadama yi te daf leen di xiir suñu jàppalante ndax borom baa ngi wax ne nañuy dénkante muñ te ne nañuy dénkante dëgg loolu principe de vie boo xam ne buñ ko appliqué ci suñu société appliqué ci suñu bopp mu ne Sénégal dana libre dana jëm kanam Afrique dana libre. dana jëm kanam mu ne ko fii ba ma lay gisee maa ngi lay yónnee sama nuyoo yee gën a sell yi gën a ànd ak respect wasalaam Ibrahim Niass lii mooy lettre bi nga xam ne Baay bind na ko ci même période bi nga xam ne ci lañ euh, def tukki mi muy 62 euh, 63 euh, nga xam ne ci laa tuddee le dégel des rapports entre Senghor et Cheikh Ibrahim ci la seen diggante commencé di xaw a xaw a tax ñu ngi sant yàlla bu baax lépp loo xam ne jub na ci ci barke ki ñuy waxtaane la lépp loo xam ne manqué na ci